بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما bokki Sénégal bokki bitim réew ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci nent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi yëkkati kàddu nuyoo bu làmb biir réew mi ak bitim réew kàddu nuyoo gu bàyyikoo ci khalifa bu tedd tok ci derb ku tedd muy shérif mam Hamdi Haydara di khalifa njabotu khadi bu nu am sidi shérif bi ci bir rew mi ak bitim rew fi ci guyet shérif nek digganteem ma ngay 1 km 1 km et demi bok ci commune bu mewan fi la nuyo bi de bayiko ko ci bir rew mi ak bitim rew jataay bi nak ku ko gis sa xel dina dem ci jataayu l'islam mu di jataay boo xam ne ni fa tabarakallah ñi ko seq ñi ci ëpp ay set yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ko di ay jabot seen wayjuri wayjuri nek ci bir kër yi jox leen ndigal ñu ñëw tok fi di yëgle bis bo xamne bi ni amuñu dul fa tabarakallah muy gàmm gu yett gamu gi nek le 9 novembre insha allah bi ñu dët man ñu ci wo umal islam bi yëpp wuñu kenn jital ci wote bi ñi yàlla jital ci bop l'islam bi mu di sëri sëriñ Muntaxa Mbàkke di khalifa général njabotu mam borom touba ñi ngi koy wo ci bis bi wa di ci wo sëriñ babakar Si Mansour di khalifa général njabotu الحاج مالك waaye ginnaaw bañ ci wooxee sunu xalifa di sunu baay fa tabaarakallaahu seex bu siidi muxtaar kunta di xalifa njaasaan moom ci boppam mooy woote ndax tey fa tabaarakallaahu ñun ñoo bokk moom lépp ci biir ak ci biti kon moom moo jiitu ci woote bi waaye nag jaboote it ñiy woote fa tabaarakallaahu kon ñi koy woo moom it ci li nga xam ne bii nii e, kenn ëppale wu ko ci ci woo njaboot sant kunta ak fu waay mën a nekk di jiital ci woote bi it sëriñ Mahfous Kunta mi nga xam ne fa tabaarakallaahu mooy yilif njabootu cheikh Bunaama bi ci ndànk te bu ñu nee cheikh Bunaama mën nañu wax ni mooy dynamo centralu kunta bi nekk fii ci Sénégal te kunta kat ñu am ci cër bu rëy ndax ñun ñu fi toog sant ay dara sunu yaay yi sunu sunu yaay yi seen yaay yi kunta lañu sant wala sunu baay yi seen baay yi seen fa tabaarakallaahu seen yaay yi ñoom it kunta lañu sant kon ñun ak kunta ñu jaxasoo jaxasoo boo xam ne bii ni dana jafe lool ci teqalli ko fa tabaarakallaahu kon ñoom ñoo jiitu ci lii ñuy woote waaye di woo sunu mbokki bopp fa tabaarakallaahu di waa kër Cheikh Saad Bou te bu nee waa kër Cheikh mooy waa kër xaalis bu naa ma Sidi Chérif ndax ñoo bokk yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkit fatimatu bint ya rasulullah bokkit cheikh abdou khalid jelaani bokk tariqa cheikh abdou khalid jelaani kon fa tabarakallahu ñoom it kenn jiituwu leen ci muy shérif baxayda wulu shibi bi fa tabarakallahu ak shérif saaya ak shérif ba ay dara bàyyiwuñu mboolem shérif boo xam ne ni shérif hasan ndand mboolem shérif bo xamne bi ni rek nek nga ci bir réew mi ak bitim réew ñoom ñooy woote waaye nag ñu leen di ci ñu leen di woo ci bis bi ndax li ñu bokk li ñu doon ci bis bi rek ñoom ñoom it noonu la doone ci bis bi di woo it fa tabaarakallaahu cerno eh, cerno Bachirou Tall eh, xalifa omar yéen ñu ngi koy woo ci bis bi waa kër maam Cheikh Mbay Louga bàyyiwule kenn ñoom it ñu ngi leen di woo fa tabaarakallaahu xalifa eh, sëriñ Sam Mbay maam Cheikh Cheikh Ibrahima Mbaye moom it ñu ngi koy woo ci bés bi di woo it sunu wëllëre di sunu xarit Cheikh Ndigal seen moom it ñu ngi koy woo ci bis bi fa tabarakallahu e di ci woo mboolem koo xam ne bi ni mi wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ngi lay woo ci bis Cene ba ah, sunu bàyyi kooku moom mooy woote Baye Asan Baye Asan mooy woote ndax fii nii mag ñi ci boppam ñoo ko ko dénk ñoo ko dénk penc mi ñoo ko dénk njaboot gi waaw ndax toujours dañoy wax ni Baye Assane moom bu xasee ba ñëw ci njaboot gi rek ñun daanaka jërul ñuy ñëw di dugg ci seen biir moom Baye moom dañ ko dénk njaboot gi kon moom mooy woote waaye ñu ngi koy woo di woo mboolem koo xam ne bii rek eh, kilifa nga ci canaba ak njabootu canaba yëpp ñu ngi lay woo ci bis bi di woo it fa tabaarakallaahu eh, njabootu eh, fa tabaarakallaahu njaboot umal islam bi yëpp bàyyiwuñu kenn rek waaw sanc sanc buuna waa bu ñu nee ndàng ni njaasaan dugg nañu sanc dugg nañu nder naar ñu ñu ngi leen di woo ci bis bi fa tabarakallahu di ci wax képp ku wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah deesul mata mën matale lim bi ndax doomu adama moo xaw a euh, doye di ci côté boobu yàlla rek moo mat waaye daal képp koo xam ne gis nga sunu jëmm ñun ñi ñu di ay set yonent bi sallallahu alayhi wa dëkk fii ci réew mi yor sunu dëkku bopp yor sunu xalifa bopp daan ñëw ci yow di mottalanteeg yow kóllëre nga di ñu gis ci sa bis ñu ànd ak yow di bëggee ti sa ci sa bis ñu ngi lay woo ci bis boobu waaye bis bi it dafa am ñu ko jagleel ka ca jiitu fa tabaarakallaahu ñu bokk ak moom lépp muy sunu maam Samba Dia tabaarakallaahu maam Samba Dia mboolem fu njabootam nekk ci biir réew mi ñoo ngi leen di woo ci bis bi ndax seen bis la lii kat mooy sotti ci ak des maam sàmba Dia ak maam xaali bu naan Sidi Sele la woon ba dara dul dara ñu ànd di wetti leen te doy ba ñépp àndee am fu ñu jëm ñoom it dañoo àndoon am fu ñu jëm fii ñu jëm nag sunu borom def na ba ñu àndee ñëw fi barkeel na sunu borom barkeel na ko ñëpp ngi fi ñëw di roote ba tax na bis bi ñu jël ko. jagleel ko ki nga xam ne bii ne moo ko moom muy maam sambaja Dia maam Samba Dia nag ñun ñëpp ci ay sëtam lañuy ñuy la ñuy dugg wa tabaarakallaahu maam Samba mi ngi cosaanam mi ngi bàyyi ko bogge wa tabaarakallaahu e bogge ba guy gaal bàyyiwuñu kenn képp koo xam ne bii ni bokk nga di njax ca bogge bokk di njax ci guy gaal mu di taalibe sëriñ ak koo mën a doon bis bi ñi ngi la ciy woo fa tabaarakallaahu waaye di ci rendre hommage nag sunu bàyyi bopp muy fa tabaarakallaahu sëñ Moustapha ma sëñ Massamba sëñ moom day sunu baay ndax dañoo gimbi xam ko ak sunu baay sëñ Amdi xam ko it ak sunu baay sëñ Abdou Khader Chérif daawul ñëw ci sëñ Amdi mukk te dëggul tànkam yu tedd ya ak farlu ga fa tabaarakallaahu ñu nekk xal yu ndaw mu daan ñëw di sëñ suñu bàyyi sëñ euh, sëñ Abdou Xaala Chérif daan ko nemmeeku njaboot tamit yàquñ ci dara ndax tey jii ki nga xam ne bii yàlla dogal na mooy sëñ Ahmad Mbakke sunu mag la ñu nekk ay rakkam lépp luy mag di bokk ak rakkam rek bokk na kook ñun waaye ñu nit lépp luy rakk di bokk ak ay magam rek bokk nañ ko ak moom sëñ Xaas Mbakke fa tabaratu sëñ Seexuna Mbakke bàyyiwuñu kenn mun na nañoo lim seeni tur njabootu sëñ Moustapha mu sëñ Moussa benn par benn ba mu jeex teg góor ñaak jigen ña kon ñoom ñëpp sëriñ bi mom nee na toogaayam bu bes bi nga xam ne ni bini limo ci njëkk a def ko bi moi jil bis bu tedd bi nga xam ne lul moom dippee ko allah di ci rendre hommage musa ba mu sin Massamba ndax bis bi kat señam am di nee na ci mom lol ndax da ci tok ci ñaari mam da ci tok ci mamam khalibuna Sidi Chérif tok ci ci mamam mam Samba kon amut lu reuy gëna reuy bis bi motax mu jël bis bi di ci rendre hommage xaritam sopem seigne Moustapha mu seigne massam ñi ngi ci wo njabotam yépp fa tabarakallah di ñaan yalla mbolim bis bu ñu mësa def ci bis yi bis bi ëpp mbolo bis yépp gën ko barkel fa tabarakallah gën ko ah, manam bari ay tuyaba ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke alquran al karim mbokk yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara nuyo bi ak ziyaara bi mooy nuyoo xalifa bi Cherif Maam Hamdi mi yàlla teg tey ci boppu njabootu Xaadir Abi Naama nuyo boobu mooy mbooleem nuyoo njabootu sunu maam bu naama Sidi Cherif Maam Hamdi ak i rakkam Maam Xaas Aydara toogee fee ci Njaasaan Chérif Mouhamed Mahmoud ak Chérif Sidi Mouhamed ak doomam Chérif Gorgui Haydara tooge ca Sokone ca tey mag ki sëtu Bounama Sidi ak mboolem njaboot yi fi nekk bàyyiwuñu imaam ak mboolem buntu këru xaali Bounama Sidi Chérif suñu waxee buntu këru xaali Bounama Sidi Chérif wax nañu buntu këru maam Samba ci ni Cherif Ibn waxe léegi moom mi nga xamante ne bii moom la ñu tudde bis bi loolu mooy famiyu Njóob ñu sant Njóob wala Géy wala Jàllo wala Sëy buntu kër yooyu yépp ñoom la sëriñ bi jël seeni nuyoo jox ko ñu seetaan ci biir réew mi ak bitim réew jox ko mboolem jullit buy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah di leen yëgal bis bu mag bis boo xamante ne bii ni waa kër yonent bi ñoo koy bis boo xamante ne ni umma islamique bi yépp ñoo ko muy bisu gàmmu Guyet Chérif di tombeek samedi 9 novembre inshallah allah sëriñ bi nee na mi ngi koy yëgal fu jullit mun a wala taalibe ci biir réew mi ak bitim réew fépp fu njabootu xaadi abina am a nekk wala fépp fu jullit nekk sëriñ bi ne mi ngi lay woo ci bis bi nga xamante ne bii ne njariñ rek lay doon ci réew mi ndax bis bu waa kër yonent bi di taxawe bis boobu amul bis bu ko gën a màgg ndax yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ki nga xamante ne bii ni tey moo tax ñi jot ci islaam waaye moo tax tey ñu am li nga xamante ne bii tey mooy jàmm ndax mooy yonent bi fi indi njub waaye mooy yonent bi fi indi tey li nga xamanteni ne bii ni mooy xéewal ak mbég ak li nga xamanteni ne bii ni tey mooy li ñu yaakaar ëllëg muy tedd nga àdduna ak tedd nga ëllëg yamal xiyam kon bis boobu sëriñ bi ne mi ngi koy yëgal ki yàlla teg ci bopp réew mi muy excellence basiru Diomaye Diakhar fay ko ko yëgal ak mbooleem gouvernement yépp di wax ne xalifa bi Chérif Maam xamdi bii mooy première édition ndax mu fi wuutu magam Chérif Bécaye Al Quran te ñu koy jooy ca noppeeguñu ci décembre bi passé président de la république excellence Bassirou Diomaye Diakhar fay toog ci réew mi kon sëriñ bi nee na ci ñoom ñaar seen ñaaru toogaay yooyu sëriñ bi mi ngi ci fas yéene màggal bisu maamam yonent bi sallallahu alayhi wa waaye bisu maamam xaadi bu naama Sidi Chérif di ko yëgal mbooleem gouvernement am yëpp jaar ci première ministre am bi nga xamante ne bi ni tey moom mooy le chef du gouvernement jaar ci le ministre de l'intérieur mi nga xamante ne bi ni tey lépp lu jëm ci wàllu diine ji ci loxoom la nekk jaar ci le gouverneur de la région de Thiès ñëw ci ki nga xamante ne bii ni doomu kër gi la muy le préfet du département di fatigable du département muy Mamadou Gueye bi nga xamante ne bii ni du sonn du tay ndax li ko diina jaral du sonn du tay ndax li koy soxlay askan bi jaral mais du sonn du tay ndax xam na ni bis yi ñaari tuyaaba nga ci am dinga ci am tuyaaba liggéeyal sa réew waaye di nga ci am tuwaay tuyaaba liggéeyal sa diine mooy islaam kon monsieur le préfet ñu ngi koy yëgal bis bi bisam la di ko xamal ni CDD yi muy organiser alhamdulilah rabbi alamin yi jàll at yi fa tabaarakallah macha allah dégg nañ ci kontaan nañ ci te gëm nañ ni tamit yi muy organiser noonu lay demee incha allah rabbi ndax jox na ko itte ba du bàyyi benn démembrement état bu nekk ci département bu Tivaouane ca ku wax gàmmu wax sécurité ku wax gàmmu wax wér-gu-yaram ku wax gàmmu wax li nga xamante bi ni mooy hygiène wax gàmmu wax dégg nga ma électrification mooy courant bi ak ndox mi ci loolu yëpp monsieur le préfet mi ngi ciy jël engagement ci ndigalu ay kilifaam commencé ko ci président de la république ba ci gouverneur de la région waaye di ko yëgal tamit doomu boppam muy le sous-préfet de l'arrondissement de Méouane te gis nañ CLD bi mu organiser ngir lu yokk li nga xamante ne bii ni moom mooy bis bi ndax fa tabarakallah macha allah bàyyiwul benn service bu nekk ci local bi ak même secteur privé yi lu melni nous ak e aussi sëriñ bi mi ngi leen di di leen bi aussi ki nga xamante ni moo war dalal le maire ndax Chérif mi ngi nekk ci commune bu Meewaan ki nekk tey doomu kër gi la saa su ne bi ak magam bi ñu relation bu sunu maam amoon ak ay ndax sunu bi ko sanc jiitu léegi wax na ko Mouhamadul Mourtada jaamu yàlla la fi nekkoon defare defar maanaam ay nit ba ñu amal société bi njëriñ waaye nag ñu dollil ko ci leneen loo xamante ne bii ci jamono yi nga xam ne bii ni cër yaatuwul woon mooy def ko li nga xam ne bii mooy xaadi xaadi duñ ko def ku mànduwul xaadi duñ ko def ku amul xam-xam xaadi duñ ko def ku jubul xaadi ñu ko def koo xamante ne bii tey kii day wut fu muy far wala de wut fu muy féete ci jamono boobu nag jamonoy kanton Demba War Sall ñu jël ko def ko li nga xam ne bii mooy xaade ci wàllu Kajoor kon relation boobu la sunu maam nekke woon fii mais amante woon ak maamu maire bi moo tax monsieur le maire euh, Cheikh Sall ñu ngi ko ci woo xam ne gan ñi ay ganam lañ ci lépp ci wàllu dalal ci wàllu maanaam euh, jëfandikoo luy wàllu teraanga ak lépp rek sëriñ bi ñu ngi ko ci woo di ko ci yëgal ndax maanaam gan ñi ay ganam lañ di ci woo mboolem service boo xam ne bii mi ngi nekk ci département bi wala nga nekk ci région Thiès wala nga nekk ci biir réew mi bis bi moo toll noonu bis bu am solo la e seriñ bi di ci woo aussi maire environnement yi mel ni maire de la commune de ngay Mékhé ci ku wax Gouye wax ngay Mékhé ndax Gouye moom ak ngay Mékhé benn la ku wax Gouye aussi wax Koul wax Mérina Dakhar wala nga wax aussi ba ndànd fa tabarakallah ñii ay maire dëkkandoo la ci yonente bi salaa sallam wax wax bu am solo ci wàllu dëkkandoo bis bi mi ngi noonu samedi la le 9 novembre incha allah jullit buy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah sëriñ bi mi ngi la ciy woo di ci woo doomu boppam sëtu boppam muy Mamadou Mbengue Guèye koo xamante ne bii ni tey fii ñu toog di woote mënoon na fee toog di woote ndax xaadi abi na ama mooy maamam waaye di ci woo tamit doomu boppam muy président Mayel Thiam mi nga xamante ne bii ni fa tabarakallah ñëpp gis nañ ni mu jàppe woon suñu waajur ba Chérif Bécaye alquran def ko baay ba Chérif Bécaye def ko doom doomoo ko ak ni mu jàppe tey dëkk bi bis bi islam bi yëpp ñoo ko bokk moo tax li nga xamante ne bi islam ñoo ko bokk muy alquranu karim di li nga xamante ne bi ni moom la yàlla joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir jullit bi mun ci teg tànkam ci buñ ci sukkandikoo duñu sànk duñu réer ñu ne suñu xëyee dinañu wàcce ay kaamil alquran ñaanal dëkk bi ñaanal maam yi waaye ñaanal réew mi ndax stabilité ak jàmm dottiku ci réew mi ndax tey réew su amul jàmm réew su amee fitna coono kese lay jural sëriñ bi ak njabootam mais coono aussi lay jural réew bi kon sëriñ bi ne ñu jiital d'abord ñaan ndax ñaan yàlla mun na lu ne ci toogaayu nguur gu bees bi yàlla def jàmm ci réew mi yàlla ubbi buntu wërsëg yi yàlla jàppale leen ba li nga xamante ne bi ni tey moom la ñu yéene ci réew mi suñu borom defal leen ko kon fala budda ñaan la sëriñ bi wax ñu jiital ko jàng alquraanu karim dina am ay jotaayu waxtaan ñu jël thème boo xamante ne bii ni dañu indiwaat jàngale mag ñi ndax lu tax ñu ne nañ indiwaat jàngale mag ñi mooy dañu gis ne ñu ngi commencé perte ay valeur ñu ne kon jot na nag ñu delluwaat ci li fi maam yi bàyyi woon mooy li nga xam ne bii mooy usulu tasawuf bu ko defee al imam muhammad di borom xam-xam bu mag imam Buna Muhammad ci ndànk ak Cheikh ay dara ak imam Abdou Khader dinañ ko taxawe daggiwaat njaboot gi soññaat njaboot gi fàttaliwaat leen delloosiwaat leen ci ndigalu sëriñ bi ci ndigalu xalifa bi suñu demee nag ba tàkkusaan ñu def mise en place yi teeru suñuy gan xaar suñuy gan suñu sëlmal ne tilmis nga xam ne bii mooy timis 19 ñu jublu ci cérémonie officielle bi xaar suñuy gan yi jóge ci kër diine yi waaye xaar gan yi jóge ci état bi ñu saafonte ñoom li nga xamante ne bi ni mooy yóbbante sëriñ bi ak kàddu sëriñ bi ñu jottali leen ko ñaanal réew bi ñaanal njaboot gi ziarante bis bi nag sëriñ bi fonk ko lool ndax dafa am ñaari mbir lu tax mu fonk bis bi benn bi ci toogaayam bu njëkk muy première édition mais ñaareel bi mu jël maamam maama Samba Dia mu dippee ko bis bi te ñi jiitu yépp wax nañ ko sëriñ bi Quraysin la Haashimi la ndax waajuram surafa la bu góor mais waajuram bu jigéen kunta la waaye nag maamam bu jigéen maam ma Samba Dia moo ko mel meññ muy sunu maam Buri ja sëriñ bi dippee ko bés bi jël tamit kenn ci ay wëlëreem ay xaritam di sëñ Moussa ma Samba mi nga xam ne benn kenn du ko présenté réew mi mu war ko rendre hommage loolu moo tax bés bi yitteel sëriñ bi loolu moo tax fa tabarakallah macha allah ñun ñi nga xam ne bi ñoo yor kàddoom ak ñi ñu ko àndal mu yitteel ñu ñor ñu fonk ñu fonk ko lool di ñaan yàlla aussi ñu egg ci ak ndàmm ak salaam di ci woo mbooleem jullit bu ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah presse bi ñu ngi leen ciy woo ndax ku wax gàmm wax communication ku wax gàmm wax information te jataay yu am solo moo fi am ku fi ñëw taataan di nga fi mën a jëlee loo xamante ne bii dina mën a njëriñ réew mi ndax ay borom xam-xam ñoo koy taxawee waaye ay message yu am solo ñaax taalibe yi ñaax njaboot yi ci li nga xamante ne bii surtout mooy ndaw yi li ñu jël léegi muy wàllu gaal yi su ko defee ci discours cérémonie bi sëriñ bi sonn njaboot yëpp fàttaliwaat aussi njaboot yi ci nan lañu ñu war a dundee ci société bi mais wax aussi diggante relation sunu maam Samba ja ak sunu maam Bounama Sidi waaye wax aussi li nga xamante ne bii nii tey mooy njëriñu jullit yëpp yooyu message yëpp dina fa jàll yóbbante aussi cantama ngërëm ci gouvernement bi waaye yónnee ko aussi tamit li nga xam ne bii nii mooy ay bëgg-bëggam ak ay namu-namam lii la sëriñ bi waxoon di ko yëgal fu jullit nekk ku ñu tudd ak ku ñu tuddul kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah jox leen rendez-vous le 9 novembre ci Guet Chérif wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jàng fatiha julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng falaqi ak naasi salaatu ala nabi ñaan yàlla comme niñ koy ñaane yegg ci bis ba ak jàmm fekke ko tal ko naaw buñ ko fekkee te tal ko yàlla defal ñu ci ay xéewal lépp luñ ci mebet mbaa ñu bëgg ko ci yàlla jàpp nalal ñu ko ñaan yàlla it ñu fas yéene ñëw ci bis bi yàlla sàmm ci yoon wi ba ñu jàmm suñuy dellu it yàlla sàmm leen ba ñu dellu ak jàmm